salaamualeykum wa rahmatullah wa mbokk internetu Lansar TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax mbokk yi sunu waxtaan bi passé dañ leen indiloon ay ñaan yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu julliwaan ba pare daka daan ñaanee te mu santaane woon xeetam bi di ko ñaanee tey liñ leen indil mooy. yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam bu daan taaya rawatina ci taaya bu mujj bi amna ay ñaan yo xamne da ka daan ñaane te mu digle tamit ñukoy ñaané rawati na ci taaya bu mujj bi mbokk yi ñu bëri lu nu gëna xam ci taaya moy da ngay wax at-tahiyatu lillah azakiyaatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سويتايا taaya lii ngay wax waaye am na ay yeneen ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan wax waaye ligle woon na tamit xeetam bi di ko def ñaan yooyu nag moom lañ leen di indil ñaan yooyu nag fi ñu koy gën di defee mooy ci euh, taaye bu mujj bi dina leen ko indil léegi léegi incha allah comme niñ ko daan defee tamit dina leen ko bindal ci écran bi ci ñi nga xam ne xëy na bëgg nañ koo mokkal ñu. ko mën koo mokkal bu baax mbokk yi bi ci njëkkee mooy an abi hurayra jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ni mu ne anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne naka yonent bi sallallahu alayhi wa xala dafa wax ne isa tasahada suy taaya ahadukum kenn ci yéen fal yastaiz nay muslu billaahi ci yàlla من أربع تنين تيف يونن تبي صلى الله عليه وسلم نينا سنين دمي بيتايا مسلولين تي بروم بي تنين تيف لن لي مسلو من يقول نيوخ اللهم يو يالا إني نك من أعوذ بك ماجي مسلو تيو من عذاب جهنم تي مبغلوم سفرة ومن عذاب القبر أك مبغلوم بامل wa min fitnatil maxya ak fitna yi dund wal mamaati ak fitna yi dee wa sarri fitnatil masiixi dajaal ak ayu fitna yi masiixu dajaal ndax masiixu dajaal day ñëw mu jig jamono te ñu bari dinañ ko topp ba mu yóbbu leen safara kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo demee bay taaya na nga muslu ci borom bi ci ñeenti yëf yi mooy ñaan yàlla musal la ci fitnay jahannama muy fitnay safara waye fitnay bammel ñaan yàlla tamit mu musal la ci fitnay dundu ndax dundu amna fitna waye musal la tamit ci fitnay de waye musal la ci fitnay masihul dajjal moy ñaan bi allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مي نان بو أم أم صلو موكي نيو تي نيار البي وانا علي جلل انت علي رضي الله عنه موحن مني يونت بي صلى الله عليه وسلم بودان جولي بايك تي تايب إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول bayna tasawudi wa taslimi yonent bi bu daan julli ba yegg ci taaya bi mucc bi ci taaya bi nga xam ne fa lay sëlmalee day ñaan lii day wax allahumma igfir lii yow yàlla yàlla nag ma jéggal maa qaddamtu li ma dawal wa ma aqartu ak li may mujjee wa ma asrartu ak lima neub wama a'lantu ak lima feñal wama asraftu ak lépp lo xamne ëppal na ci togn sama bop wama anta a'lamu bihi minni ak lépp lo xamne def nako te nga gën mako xam antal muqaddimu yow yàlla yaa jiital ka jiitu wa antal يا دسال جناو كدس جناو لا إله أمول بن بور بيا وجامو إلى أن تقول اليوم يا الله لي يونت بي صلى الله عليه وسلم دكادان نيان سودان تايا تي تايا بيغا خامن موي نيارل تايا بي موي تايا بو موجي بي موي اللهم اغفر لي ما خدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت muy ñaan yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan ñaanee ci taaye bu mujj bi ñaan yi boo ci mokkal rek mën nga ko def ginnaaw bi nga defee ataxiyaatu lillah azakiyaatu lillah ba mu jeex nga teg ci ñaari ñaan yi bo ci mokal rek man nga ko ci yok so mokale ñaar yeb tamit baxna euh ñettel bi moy boy taaya boo waxee ataxiyaatu lillaay azakiyaatu lillahi ba mu jeex man nga ci yok ñaan yi yii nag moo gën gudd bo baye xel ci muqaddimatul aziya boko jange jàngee dinañ la jàngal ñaan yi mooy wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadul haqq wa anna al jannata haqq wa anna an nara haqq وأن siraata حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سو بارينغا صلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سو بارينغا اللهم صل على الملائكة والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ما قدم لنا وما أقرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن العذاب النار وسوء المسير يب أي نيان لا يوخمني بو مقالك مقول تايا كنا بنا رفع التحيات الله الزكيات الله آه، رواتنا تايا بمجبه من قوة يوكو داخ أي نيان لا يوخمني ينتو صلى الله عليه وسلم تكالان نياني تايا نقول لول لين اندلون آه، نيان يب نقبل اكرابي داخ ñu bëri mbokk yoo xam ne xëy na bëgg nañ ko mokkal ñu mën góor góorgóorlu mën cee bàyyi xel dañ leen ko doon fàttali te di ko fàttali waale suñu bopp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.